Assalamualaikum, waa Thiès ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen xamal xew-xew bu mag bu am ci Thiès xew-xew bi sargal pa basiru Diop la ex maire et mën naa wax ne sax ex maire amul parce que titre boo xam ne da koy topp ba ila yow mi diin ndax taxawaayam ak jëf ju rafet yi mu def ci biir qui du ko natable euh, ci kaw loolu nag xale yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp euh, Diop ñun leen 100% pour cent Bassirou Diop ñoo organisé euh, sous le haut patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal et sous le parrainage de monsieur Idriss Seck président du Conseil économique social et environnemental Monsieur Augustin Tin, ministre délégué, directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République, Monsieur Yankoba Diatara, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique du Sénégal. Monsieur Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Ressources animales du Sénégal. Monsieur Pape Amadou ministre du Commerce et de l'Artisanat du Sénégal. Monsieur, euh, honorable député Monsieur Abdoumbaou, premier vice-président à l'Assemblée nationale, honorable député Madame Garmifal, honorable député Madame Fatou Tamsir, Monsieur Mauro Malik directeur général de l'ANAMO, Monsieur Siré Dia, président du conseil départemental de Thiès, Monsieur Abdoulaye Dieye, maire et chef d'entreprise au port de Dakar, Honorable Aïda Gueye Goudjabi, candidate aux prochaines élections euh, euh, législatives. Monsieur Ousmane Diagne, maire de la commune de thiès Monsieur le maire Aliou Monsieur le maire Lamine Diallo, Monsieur le maire Bintabas, Monsieur le maire Sayer Mangan, Monsieur As Babaker Gueye, chargé des élections de Réumi, Monsieur Pape DG Thiès Prestige, Monsieur Serge Diouf, opérateur économique à Thiès, Monsieur Ablaifal Fall Mao, chef de parti, Monsieur Abib Monsieur Khan, responsable politique à Thiès, Monsieur Basir Gueye, responsable politique à Monsieur euh, Badou opérateur économique à Monsieur Khadim Sam, opérateur économique à euh, bon continue. Euh, parce que nous avons euh, baat ci biir ties comme madame Khady Diagne euh, euh, ya li ak ñenen ak ñenen parce que liste bi dafa xaw yaatu xamna du ñak après peut-être suñu natango suñu xarit sàmb comme mi ngi liggéey ak ñom dina ko pour mu gën wasaru au programme nak ci programme bi ni le tëddee 16 heures 30 minutes mise en place des invités 16h30 17h30 animation ñu avons une animation bu Les gens jigéen ñi far euh, prévoir def ngoyaan mooy ñëw xumbal donc les gens Cees yëpp invité nañ à ci 17h30 18h allocution mooy maanaam dinañ jox euh, jébbal kàddu euh, kilifa yi fa nekk kenn ku ci nekk am baat yu mu ci ci témoignage ci sargal Pape Bassirou Diop parce que vraiment nit sommes... Thiès fonk la nit ku Thiès west est fonk la vraiment machallah taxawayam bi ñepp ko rafetlu ñi ngi invité ñepp bu kenn manqué bis ba assalamu alaykum bolo mi bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne mbir xew na mbir mi nag li ko waral mooy sargal ba Bassirou Diop maire bi nga xamante ne ay jëfam wër na ku ci parti bi rek xam nga ne ba Diop def na fi mbir ñun nag waa 100 bi, cent bii ñu di sargal ndax jëfam ju baax liggéeyam bu set jëfam ju sell macha allah nag ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ku doon liggéey ak rek ñu ngi lay xamal ni sama gi mooy sa invitation muy conseiller yi fi nekkoon doo liggéey ak nag moom ak ay naataangoom ay dëkkandoom ay jegeñaaleem ñu ngi woo ñëpp ku ci nekk ñaan rek nga ci bis jàppale ñu ci ñun wa 100 bi di sargal Pape Bassirou Diop ñu ngi wo monsieur le maire Aline saw ñu ngi wo Lamine Diallo ñu ngi ci wo bara Jaxate ak képp kuy soppeem rek ñu ngi la ci wo di ñaan yalla nak yalla nañ ci dugg ak rahim ci ak alhamdullilah rabbil alamin di ci wo nak député bi maire Fandiaye Tamsir ndax nag Pape Bassirou Diop lim fi def machallah ndax nag ba mu toogee daa uuf ñëpp njaboote ñëpp kon nag buñ koy sargal dañuy woo ñëpp amul xaaj amul seen ku dégg sama kàddu rek man présidente d'organisation Khady Niang xamal ni maa ngi woo ñëpp wasalaam. aleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi may seetaan di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa Thiès di leen wax ni bu ngeen gisee sunu toogaay bi dafa am lu xew ñun waa 100 pour cent ñooy sargal Pape Bassirou Diop le 19 juin. ca terrain Cosmos loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp responsable waa cent pour cent yi ñoom Khady Niang ñoom maa awa ñoom maram gay Fama mbay maram Ndiaye Ndeye Kane bu Cité Senghor ñoom Assou Diassé bu ma limee damay jum waa cent pour cent bi nga xam ñoo nekkoon ci ginnaaw Pape Basirou Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi ñu xam ne bis bi seen bis la ñu ngi ciy woo suñu yaay Aïda honorable député Aïda Gaye Goudiaby ñoo ngi ko ciy woo di ci woo responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci commune est bi yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di woo suñu yaay conseillers yi nga xam ne ñoo doon ànd ak Pape ndax Pape kat nekk na fi ay at waaye mës am a xaar yàlla kenn muy responsable yi nekk ci yeneen parti waa réew mi ñëpp ñu ngi leen di woo waa ouest ñoom taan yaay fay waa nord ñu ngi leen di woo waa waa est ñëpp ñu ngi leen di woo responsable yi xam ñoo doon liggéey moom ak ñi nekk ci parti bi ñu ngi woo ñëpp ci suñu bis bi suñu bis bi nag fonk nañ ko te ku ñu ko fonk le ñu fonk la suñu bis bi dafa alaa daw ndax Pape Bassirou Diop ku ne xam na ko ci parti bi ku ne xam na ay jëfam ñu ngi woote suñu bisu remobilisation bi bennoo bokk yaakaar ci ginnaaw président sa Seck ñun waa Pape Bassirou jóob yi ndam ca kanam ñu ngi woote nag ci sargal bi bu ko kenn tardé incha allah dana neex dana xumb ngoyaan dana ñëw bu soobee yàlla lu waay bëgg a gis rek na nga ñëw ca jour booba incha allah